yow yaa yore matière pour tourisme yow yaay alimenter le tourisme yow li ko wax ci grande famille religieuse wax ko ci les grandes figures ba dem ba ci école bi les curricula monsieur le ministre culture mo wara guen les grandes figures wax lan lañu def wax sen origine wax sen héros yi ñu am mais surtout

maam joo xam ne doo yendu assemblée dina la wax lan la nit ñi daan def yan période lañ koy def bu gerte gi ñoree lu ñuy fecce bu bu ñuy bu ñuy bu ñuy waaj a dem ci tool yi nan la ñuy def retracer la l'histoire bi Sénégal parce que ñun loolu mooy sunu richesse monsieur le ministre. te loolu li ma ko wax ci suba ni ko les foyers religieux mën nañ leen a jaay ci la fa nekk yaakaar naa ni yow mi yore culture yow yaa ko war a génne. yow mi yore culture yow ya wara a génne les grandes figures ba ñu mëna a defaraat curricula yi yow mi yore culture yow yaa war a delloosiwaat nit ñi pour que effectivement ñu baña acculturer acculturer wu même ña nekk ci ca biti donc site yoyu dafa nekk à travers le Sénégal gox bu nekk ak sitam té dafa wu ak culture bañ fay def même si la culture est festive amna na festivité yoo xam lié dafa liewu ak site bobu euh, la fin des artistes wax nañ ko mais ketal artiste monsieur le ministre en 2019, dafa wara jeex dafa wara jeex ñu organiser wu mettre en place un mécanisme de prise en charge de protection des artistes ba nga xamni amna artistes yoo xam ni boo leen gisee sax sa yaram du artistes rek du artistes rek ñi nga dañuy def ay animation kenn ku ci nekk am tur ñu di leen dégg di leen béggee ñuy bégal sénégalais yi ñi di def théâtre boo leen gisee da nga leen di yërëm bëgg leen a sarax wala ñu di leen defal ket loolu c'est pas normal war na ñu a organiser monsieur le ministre pour terminer nag ma ñëw ci lecture monsieur le ministre man dama bëgg lecture torop te euh, maa ngi nuyu sa waa ministère mënuma leen lim nag parce que dama nekkoon euh, ñaari yoon présidente commission culture et communication Je le mais livre monsieur Koundoul Saïd dañu daan nit euh, mais euh, di dañu maire dañ ma bibliothèque municipale c'est extrêmement important parce que waxuma la internet bousculer aujourd'hui la lecture te lecture nak dafa am benen dimension bu ci am non seulement dina tax nga nga inciter nit ñi pour ñuy bind mais formation lecture nekul ci formation internet toujours dañuy wax daan pourtant diw de mu ngi ci tel niveau té il s'exprime pas bien mais en réalité lecture rek mo mën former nit ki mo mën former nit ki intellectuellement ba mu am une maîtrise de la langue ba mu am effectivement des connaissances euh, culturel parce que des connaissances yo xamné ci culture générale la koy la koy jëlé loolu mo taxone euh, ce ministère daan ko daan na maye ay livres ce ministère daan dimbalé dimbale euh, élus yi pour ñuy mëna def seeni bibliothèque daan na maye ay livres bu doon sama sago habitude bobu nga reprendre ko pour que effectivement ñu dimbalé élus yi pour que ñuy mettre en place ay euh, inciter xalé itam à la lecture je vous remercie madame la présidente